waaw ma tey sëñ Birahim mhm. euh, mu mel ni gis nañu mhm. bagage yi nga xamante ni si bokk na ci wàll li ngay faje mhm. mu mel ni gis naa fi ay biteel yu def euh, ndox biteel yi si lu muy faj ah macha allah biteel yi ngay gis ni soxna day asu ay cangat la alquran la benn bu ne wute na ak morom ma moo xam cat moo xam làmmiñ moo xam ku ñu liggéey moo xam ku yóotu dara moo xam ku bëgg tabaarakallaahu mucc ñoo fi dajale ni tabaarakallaahu benn bu ne ak li muy jëriñ mu mel ni tamit gis naa fi ay euh, pot yoo xam ni bu ci nekk li ci nekk. Hmm. bokkut ak beneen bi li ci nekk. Hmm. mu mel ni yii ay sunguf la. Hmm. yii mel ni ay cuuraay mais benn nuroowut ak sa morom. mu mel ni kon pot yi benn bu ci nekk la ngay faj bokkut ak sa morom la faj. waaw macha allah soxna Ndeye Asou eh, garab yi ñuy faje la muy plante yi macha allah eh, traité nañ ko liggéey ki nañ ko war a liggéeye lenn lu nekk ak li muy jëriñ donc wute na lool. am na ci garab yoo xamante ni tabaarakallaahu pour nit ku wéradi la am na tamit càngat la pour dindi liggéey ak yeneen ak yeneen am na tam ay cuuraay yoo xamante ni dana tax nit ki mën a mucc yooyu yëpp mu ngi fi macha allah. mu mel ni tam gis naa fi ay biteel mu mel ni lu def mm-hmm. euh, parfum mm-hmm. Mm-hmm. ndax biteel yi tamit parfum kese la wala dafa am lu mu àndal waaw kii daanaka macha allah ci ci wàllu ci wàllu faj ba léegi ci garab yi nga xamante ni daanaka produit naturel la muy bio mu ñu wax euh, gel lubrifiant ci jigéen ñi nga xamante ni dañuy sëy macha allah di di di xat donc boo ko jëfandikoo baax na torop euh, euh, paquet yi aussi pour pour néew kàttan la waaw ñi nga xamante ne dañoo néew kàttan tabaarakallaahu paquet yi waaw buñ ko jëlee rek incha allahu taala Euh, yàlla dana ci def taw feex dana jotaat seen kàttan bu baax a baax waaw ba tey ki ngay gis ni macha allah taala sachet la boo xamante ni euh, garab la baax na ci jigéen ji nga xamante ni dafa dogoy accoucher incha allah dana delloo si waat euh, ak yaramam yëpp macha allah dana nekkaat macha allah forme bi mu yoroon ci laata muy accoucher te dana def lu baree bare ci sa biir ba nga xamante ni lépp luy jàngoro lépp luy tawat incha allah di nga ci mën a mucc macha allah dañ koy joxe ba léegi Mm. mu mel ni gis naa ñaari pañe tamit yuy tegi la def. lan lay faj waaw tabaarakallaahu kii ay gàllaaj la yoo xamante ni macha allah mm. danañ koy faral di joxe ci ñi nga xamante ni dañoo yor bopp bopp bopp bi metti mm. wala nga yor tawat boo xamante ni dafa yàgg ci sa yaram maanaam jaaxal la macha allah taala ci itam am na ci garab goo xamante ni wàllu bayre la maanaam dana la dana la dana ubbi sa buntu wërsëg bu dee da ngay jaay macha allah taala bu dee itam da nekk ci mbir di yëngu ci dara nga bëgg ñu xam la ci ñaareel boo ko jëfandikoo rek incha allah taala dina am barke te ñëpp dinañ la xam. incha allah mu waaw cosaan wi nag daara la. Mm-hmm. waaw alxuraan la ba léegi ñu ngi ci ñu ngi ci yëngu. ndax euh, ku ñu alxaaji tijaan ñu xamoon ko ci jàng ak jàngale loolu moo doon dundam famille bi tam macha allah néew na koo ci dem këram te fekkoo fa daara alquran donc alquran moom munuñu munuñu dem bàyyi ko ndax mooy suñu cosaan te lépp lu ñuy def rek dañ ciy dugal alquran moo tax tabaarakallaahu danañuy faral sax di jox nit ñi ay kaamil alquran di leen ko dimbalee ñi ci am itte macha allah macha allah jërëjëf mu mel ni mbokk yi li mu wax leer na gis ngeen garab yaa ngi nii waaye tamit wàllum saafara yi tamit gis ngeen ko ci biteel yi moom mu ngi nii rek nee la képp ku ko soxla mbaa nga jaaxle tey jii ku bëggoon a am sa numéro téléphone. waaw numéro yi euh, ñu ngi fii Dakar Ouest Foire jàkkaarloog hôpital Philippe Senghor. Mhm. numéro yi di 77 296 73 13. 77 296 73 13.